ay ca doore ko kay groupe des médias tribune nee de l'accident yi bari lool nag tali bi defatul kon en détail en lay faat faatuk bakken gu sakkan la ne meeku si diiruk fukki fan juróom-ñaar jàppale ne kon fukk juróom benn ci bakken rot nañu ci tali bi li ko waral nag yéen kay groupe des médias nee mooy sanction yu oyof lool nag daanaka ku sooke ab l'accident dara du la ca fekk ndax masla geex laa misoo gi accident yi ci tali bi ndakatee yóbbu l'hôpital tabaxub l'hôpital Aristide la doon teg yéen a kaay groupe des médias nee na dama ciy dikk de xuus si nag tribune nee na njaw bu ngaa wéy di sa desu xam bi ndax nag directeur général bu Génitec international Souleymane Diagne nee na de njiital FONSIS Pape ba Diallo ak njiital l'hôpital ba Boubacar Thiandoum de la wax nag boo seetee ba ca biir bëri na ci lu nga xam ne nii dara du ci dëgg nag ka daraay dëgg amu ca ku ci bëgg lu leer rek say nopp tey ma leen kon mbir yi nu mu demee ba ñu jokkoo ak ñoom offre ba ñu daanaka financement bi yemb na décembre 2021 fekk na lépp mat sëkk nag ñu bind lettre maanaam jaaxal jox ko njiital kon l'hôpital ba ngir yëgal ko ko waaye nag faalew ñu fulaalu ñu furaas daal di xëddeen amuñu benn réponse ñu sol sunub dàll fekk ko sa bureau moom mu yebal ñu kon nag sa ministre de la santé tang boobee Abdoulaye Diouf Sarr moo fa nekkoon kookee nag ba nu ko gisee mu yebal ñu sa directeur de cabinet Alphonse Thiaw moom it nag mu yebal ñu sa directeur des infrastructures ak équipement ba ci maintenance Amath Diouf moomee de dem na ba wax n kon ñu leen defal gisuñu bu ko gën waaye faw nag ñu gis njiitu réew mi ñu demati rek bindati bataaxal maanaam correspondance jébbal ko foofu it furaas tontu kon sunu jaan wàcc na ñun daal defuñu lu dul xëy bés gis ci télé bi rek xam ne ne kon nguurug Sénégal jaay na ñetti hectare ci l'hôpital ba ngir mën a tabaxaat mel ni ay si ñun moonte de proposition bi ñu leen defaloon amul benn yoon fu ñu gis ne kon dañuy jaay suuf waxuma la benn mètre carré ngir mën a tabax ndax financement bi yëpp dajoon na le quotidien ni neexul ba neex waaye cas bi nii la demee le fond du dossier bu ñu waxantee rek nii la demee njaayum suuf moom bokk ci woon waxuma laa na ñu naan 3 hectares ndax mënoon naa ñàkk la mënoon ñàkk nag moo di Econ City réew mi quotidien nee na projet boobee de ndekete yow ay dóor la woon ndax nag tegum xeer bu njëkk ba ba fi France daal di xëddeen xeer ba suulu na te du benn tabax bu ñu fa tegaat maanaam brique yéenekaay bi nee na suñu autorités yi de waa ji jaar na seen kaw ndax cinquante cinq la ñu ko jox te tey jii nag benn hectare bu ci nekk ca Akon City mënees nañu ko jaayee benn milliard te ba fii France daal di dara taxaw fa la taxaw kay demul dikkul moo di réewum Sénégal enquête nee na réew mi de en mode stand-by la nekk dara doxul lépp ne tekk nag di xaar njiitu réew mi président Macky Sall mu tabb premier ministre tabax gouvernement bu yees ndax benn weer a ngi ni président Macky Sall xàcc tëwadóor ani lu muy xaar dama ne doxantul ba ci ministère yi ministre seeni bureau lu dul secrétaire généraux yi ñooy def di dindi ñooy signé dama ne ñoom rek nga fay fekk lii rek tax Sud Quotidien yi yombul de yombul benn yoon ci président Macky Sall dafa mel ni fii ñu toll nii de kotam dafa jëm suuf bu doon jaaykat ñu ne dafa lambale yéenekaay bi nee na lii président dajale moo bari te nag la mu wone moo di nguur guy waaj jeex local yi président Macky Sall dañ ko tabaxal muy terter yi législative yi ñu daal na ko moo tax nag Sud a jaar ngir nag taxawaat dëgg nag caarendi politique bi direct news daal di koy tontu nee du yomb benn yoon nag ndax sax fafu waa ji patt la ci maye 31 juillet lañ ko ko dégg muy wax góor ga ca genn kàddu tey ji la ko gën a kenn dégg ko mu wax patt daal la ci boole direct news ni mbaa di résultat législatif daf koo faf assommé Modou Fall ci l'info ne ani lu ko fi jaar dàbbale ko ci l'évidence nee gisuma lu fi jaar coow li te ku xam coowal troisième mandat bi ñuy laam-laamee dama ne jaru ko ndax bu ko neexee samp ndëndëm ani lu koy tere borom dëgg moo wóote nee na lii wóor te wóor moo di bu sampee ndëndëm ba ñu valider candidature daañ mobiliser wu nekk ci ginnaawam ndax moom mottali émergence bi nga xam ne moom la Sénégal nekkee lii la Modou Fall wax si l'info dàbbali ko ci l'évidence nee na Macky Sall de moo ngi si mandaam bu njëkk bu cinq ans xanaa kon coow li jeex na moo di candidature yi nga xam ne mi ngi jollee ci boor bu nekk te 2024 dikkagul évidence nii bu mu bett bu ñu gisee moom it samp ndëndëm ndax bopp expérience te élection yi ñu génne jàppale ne Déthié Fall bi daf cee yéeg de kon su ko neexee nag samp nëndam ndax bu sampee war samp bu sampul war samp candidature am jëm 2024 kon Déthié sampal ka samp kay nag te nekkul Sénégal moo di Karim Meïssa Wade jëlal source a teg sa kon bés yéene kaay nee nañu Karim Meïssa Wade mii de crédit doy na te mën naa téléphoné ilimix borom whatsapp ak woote téléphone woo na député yi wàllu de ku si nekk nag na leen ci résultat yi nga xam ne am nañ ko ci législative yi nee na leen li ngeen liggéey rafet na te nag jàppale ne dafaguñu dara dañuy doog a door dem leen fekk ji askan wi militant yi fexeel leen nag ba base bi gën a dëgër ndax 2024 jëm te dafa laaj renfort kon dem seeti base bi ndax nag léegi ma dikk ware ni Karim Meïssa Wade bu dikkee ngeen xam ne kon ka dikk dikk na su boobaa ngeen xam ne boroom réew mi dikk na te ñii di wax ni Karim Meïssa Wade déggul wolof Karim bu dikkee ñu ruusee ndax kuy sa baay Abdoulaye Wade fii ci réew mi Sénégal ak lim fi tekki kuy sa maam ñu ne alkaalima Sarr wax di xaar leneen coow li coow li kay moo di Babacar Ba ci Vox Populi nee na ani moo tax procès Adji Sarr Ousmane Sonko kenn tëggagu ko njiital forum du justiciable nee de mbir yàgg na te nee jot na nag la justice doit être courageuse et vider ce dossier Sonko Adji Sarr Babacar Ba mooy ni xam ne de nee na askanu ci boppam ñoo sonn damm tay ci coow lu ni kon nag dossier bi jot na nag ñu daal di koy tëgg boobu le procès jàll ci leneen ma jàll kon ci Dakar Times ak njiital Sénélec koy fexel de yéene ndëgg sërëx ngir mu surux te lépp nag mi ngi dooree ci ba mu annulé kon contrat 187 bu Akilee lii daal moo tax bés bu yàlla sàkk mu am ñoo xam ne si moom la xëy di ci gont ngir yàq waaye waa ji tontuwu leen de patt bi la leen may rek nee président Macky dafa maa dénk mission mu di kër gi di Senelec kon résultat moom war waaye di coow lu bari Dakar Times si nee li ci gën doy waar mooy ay noonu dëkkaale Pape Demba mi de ña ko nelaw te xam ne du fi jàll le soleil moom dee na mbay mi de fii ci réewum Sénégal neex lay xeeñ na buñ sukkandikoo ci ministre bi ñu dénk wàllu mbay mi nee na ñeenti millions ci tonnu céréales de la ñuy xaar jamono joojee 24 heures nee na nañu wax ci wax ji wax ji wax ji moo di soble sauce de luxe la léegi ci njóobeendi waaw fii ci réewum Sénégal soble ji xeeñatul ci kër yi de yaa sa neexatul ndax góorgóorlu yi bés bu yàlla sàkk ñu ngay souffrir te suñu ministre yi dafa mel ni dañoo tële ci njëkk li te waxuñu li am askan waa ngay souffrir de njëkk na lool ñay souffrir dëgg nag jëlal yéen a kay groupe des moo di soxna yi soxna si boppam milliards la ñu bëgg ak der bu xees moo tax lu nekk la ñuy daj ngir xool li seen yaram bi weextaal aji sow sa Parcelles Assainies la dëkk yéen kaay bi la sekkal waxtaan di tribune nee na man dama dem ba nga xam ne mbir yi cher na lool maay jàmbal sama bopp lu nekk laay jël ba ci meew boole ko ci te ku bëgg it ma jaay la dix mille jàpp quinze mille waaye nag mbir yi doxatul ndax ak tàngaay bii koo gis mu ngay jàmbal boppam ngir weex rek bëgg jaar weex tàll rek fii la réew mi toll kon mu ngoog dig daje si yéen kaay jàngeen jëf